mangook agroécologie tey nag dañuy wax rek ci xam-xam yi nga xamante ni kon mu ngi euh, sukkandiku rek euh, ci euh, gëstu ci science waaye tamit mi ngi sukkandiku ci cosaan yu ñu jàpp ni bu ñu ko lëkkalee rek wàllu mbay mi nag dana gën a am doole ci réewum Sénégal moo waraloon nag ay acteur daal di rek sekk benn ndaje solos ndaje boobu nag mooy bu ñu ci génnee ni ñuy gën a fexee rek ba gën a mën a nag taxaw ci fexe ba xeex coppiteg jaww ji naka noonu ñu gis ni ñuy yëngu ci wàllug euh, mbay mi ñi seen xam-xam màcc ci wàllu suuf ñoom nag ña nga fa woon ñu jàpp ni ay ingénieur tamit yu xarañ ci Afrique saw ñoom it ñoo daal di joxante loxo ni ñu ko waxee lépp rek ngir mën a am ndam euh, ci li ñuy xeex tey muy mbay mi gën a suqaliku euh, diis après lañ ci àndal. bu ñu bëggee mbay mi doon lu sax tool yi mën di meññ noor wala nawet faw ñu dooleel suuf si ñuy bayee. ni ñuy bayee ak ni ñuy doxalee di exploiter suuf si euh, doy na waar buñ si deful attention mu ngi jur loraange pour notre environnement mu ngi jur loraange pour nit ki mu ngi jur loraange pour jur gi. nu at yi dem suuf si digganti néew lu muy joxe ci rendement situation bi nag yemul rekk ci Sénégal daanaka Afrique de l'Ouest bi yëpp la laal looloo tax réew yi bëgg soppi nu ñuy doxalee. léegi nag si biir sopparñi boobu du nun rek ci Sénégal ñoo sentir loolu dafa am encore yeneen i réew yu bokk si franco francophone ñoo xamante ni ñu ngi xeex loolu ci seen réew mais lu ma wóor te wóor ku sunu mbéy surtout bi ci ëpp doole mbéy boo xamante ni day dépendre si nawet. ay que sunu mbéy mi tey laaj jostu gëstu laaj na sopparñi par rapport ak bekkoor bi. démarche bi mooy fexe ba xam-xam bi bàyyeekoo ci scientifique yi ñu boole ko ak xam-xam bi nga xam ne moo bàyyeekoo ci baykat yi seen bopp ngir mën a ñogal mbay mi fii ci Afrique de l'Ouest. fokk ñu seetaat naka lu ñuy béyee naka lu ñuy bay ba mbay mi day nekk bay mu sax tool yi ñu yar tool yooyu lu ñu war a renforcer naka luñ koy renforcer nak nañ koy reconnaître d'abord dooleel ko dooleel ko mooy lan mooy naka lu ñuy fexe. ba xale yi ak xale lu Sénégal ak fu mu mënti nekk bu soxlaa suuf mun koo am ni mu waree. solos ndaje mi nag mooy fexe scientifique yi ak baykat yi boole seen xam-xam ba nga xam ne bu taw néewee sax baykat bi mën gis boppam ci liggéey ba muy def. ma ngoog di sa ñu koy jaajëfal bu baax a baax nag euh, di ko jéggalit mu waroon fee teew waaye rek am rëkk-rëkk euh, moo ko waral ab gàllankoor la di saa ñu lay jaajëfal bu baax a baax am na solo nag li mu indi tey euh, ci rubrique agroécologie mbay nag baax na waaye la gën dëgg mooy nga am suuf soo ko bayee yaakaar naa lu am solo la waaw lu bi surtout Fat ki na dem comme ni nga ko parce que boo déggee débat bi. Mhm. déjà ci mbiram foncier bi li yi nga ciy dégg ak coow li dans tous les villages gis nga li xew Matam si journal bi wane nañ ko ak mhm. temps yëpp Sénégal. Mhm. Mm, il faut rendre hommage à cette dame également Mariam Sow mi nga xamante ni sant xaw doy waar. liggéey bu am solo bi nga xamante ne ko def ñoom waa ENDA su ko defee surtout di ba ko defee baykat yi ak sàmmkat yi aussi ñu bàyyee leen li nga xamante ni moom lan moom parce que dañu toll. foo xamante ni comme ni ñu ko waxee dem nañ ba multinationale aussi dugal nañ seen loxo ci suuf si di ko occupé et puis accaparement des terres yooyu dem na ba des fois ay conflits day am ni ñëw ngir a a ñàkk mais il faut waxtaanam. su ko defee ku ci nekk gis sa bopp ci li ngay def rawatina nag ñu koy défendre ba tax na kon waxtaan mënul ñàkk on a reçu ici beaucoup de personnalités yoo xam ñëw nañ wax ci li nga xam moom mooy la gestion foncière ak naka lañ def ba yenn fitna yi ñu bañ koo nemmeeku surtout ci monde bi nga xamante ni dem na ba mbiram suuf léegi ak tamit ni nit ñi dëkkuwaay yi dem bu leen bëgg a nangu muy loo xamante ne ay plaidoyer la yu leen nit ñi mën a dégg gis nañ fi kon au conseil des collectivités territoriales même ci wàllu woowu ñu ne tey dinañ dalal mm-hmm. ak ñi nga xamante ñoo ne yëngatu ci wàllu woowu xëy na su ko defee ñu xool naka lañ def ba encore une fois euh, lii di la gestion foncière rawatina gouvernance bi gën a ñëw gis nañu sax fii ci Sénégal ah, ay dëkk yoo xamante ne tey Euh, baykat ya dem nañu ba ñàkk seen suuf seen tool mm-hmm. ñàkk nañu ko ndax ni nga ko waxee dañuy gis ay multinationales yoo xamante ni ñooy mm-hmm. ñëw foqati ci li ñu wax suuf si si mm-hmm. seen i loxo muy ay jafe-jafe. mais dañ leen koy jox te euh, j'imagine que nguur gi la mais euh, lu ci doy waar mooy xam nga ñooñu ñoom moom suuf seen suufu maam la suuf si nguur si <laughs> nguur gee ko moom mais li ñu wóor mooy ñoom dëkk nañu suuf si ay siècle si ay génération génération tey jii nag génération bi nga xamee ne ñoo ko fekkee suñu bëggee ñëw nangu suuf si si ñoom day day day métti parce que en plus da ngay xool ñi nga xamee ni ñoo ñooy jël suuf si mm-hmm. multinationales yooyu li leen war duñ ko def parce que souvent tamit ñooñu suuf suuf si mooy seen moyen de subsistance ci la ñuy dund mais imaginez benn multinationale ñëw jël main d'œuvre bi nga xamee ni moom la soxla ci askan wi nga xamee ni ñoom ñoo fa nekk seen moyen de subsistance ñu ko amati mais quand même euh, question de survie la. seen seen jël main d'œuvre bu du doon foofa. parce que léeg-léeg ne ñoom li euh, ba noppi jéggi leen dem di jëli ñeneen donc ñu dëkk sax si biir dëkk ba duñu bénéficier wu ci. ba tombé yaa am ci këru liggéeykaay mais loolu gën a loolu frustration mm-hmm. parce que suñu demee ba di ci teg seen bakkan parce que nit moom soo demee ba amatoo loo sutur loo quand effectivement je pense que euh, dangay ngay jëfi jihaad nga koy nga koy mujjee def ko moo tax quand même violence bi ngay gis ci mbirum suuf yi euh, suñ ko suñ ci jógul mën na mm. jéggi foo xam ne mën na yéggi foo xam ni quand même ça va être extrêmement difficile à contrôler moo tax la gisoon nañ ko sax ba ci askanu Kédougou ah, ak société minière yi mm-hmm. euh, doon nañ dégg ay temps ñuy yuuxu ñoom tamit ne dañu gis ni ñi jigaani maanaam ñu jógee ci sous région yi mm-hmm. ñoom ñooy ñëw Kédougou di bénéficier wu bénéficier wu ci yenn liggéey alors que ñoom ci biir dëkk ba lañ dëkk te duñu mën a jotee ci yenn liggéey yooyu tamit ay jafe-jafe lañu mais lu ci mën a am mooy euh, réew mm-hmm. euh, pour tabax pour maanaam exploiter suuf si ak gox boo mën a dem il faut ñuy pencoo mbir yi. te mhm. bañ di ko pàccoo pàccoo bi nag moo ëpp te pàccoo bu fekkee da ngay pàccoo te waxtaane woo ceeg population bi ak. ambition boo fa mën am bu la Bill Clinton wala euh, Joe Biden doon jox xaalis sax pour nga ñëw euh, investir mhm. du doy il faut ñu dugal ci askan wa nekk te gox ya ñu jéem a waxtaan ak ñoom bala ñu faa samp dara bala ñoo joxe teer yi également am nañu ay sous-préfet am nañu ay ndaw yoo xam ne ñoo toogal nguur gi ci yenn gox yi ñu dem waxtaan ak ñooñu sensibiliser leen mais euh, coow li jub yëpp c'est dañ leen di imposer loo xam ni euh, préparé wuñ ci dañuy jékki-jékki rek ñëw ñu ni may nañu diw euh, ay tonne ay mu tuddati ay ay hectares terre te seeni suufu maam la ñoom aussi bëgg nañu bay mais euh, moyens yi matewul mais bu ñu waxtaanee kële day indi moyen yéen bëgg ngeen développer seen terre mais bu ñu waxtaanee juboo am mais bu fekkee juboo waxtaan amul rek mais réeru te bu réeroo amee ku nekk da ngay nekk ci télé yi di eh, ñaxtu suba ak ngoon di takk ay brassard rouge te loolu yëpp. mënoon na ñàkk mënoon nañ ko mënoon nañu waxtaan. ma ngoog eh, jërëjëf Mortalla ci intervention yi am na eh, solo taaxelu leen jàll ci xët yu njëkk yu yéenekaay yi.